jërëjëf mbokk yi bàyyi xel seen site bi di Info ñu ngi fi nga xamante ni moo di Sidy kër Ndiaga Fall Ndiaga Fall nag euh, koo xam-xam taxawaayam ci li nga xamante ni maanaam moom moo di euh, média euh, nekk foofee Thiès TV moom nag moo demoon ziyaare Yonent bi sallallahu alayhi ñu ñëw fi fekk ay kilifa yu bëri bëri daal di ñëw teewee li nga xamante ni moom moo di ngandale bi sëñ Souleymane Seck ñu ngi leen nuyu bu baax a baax ñu fekk la ci ngandale Ndiaga Fall bi tey ji sa tànk lan moo ko waral hmm? taxawaay tey jii ci ci bisu Ndiaga Seck. ah waaw moom la waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wa magfiratuhu wa ridwanuhu wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin sayidi almudafiina an alxaq wa alihi wa sahbihi wa sallim eh, mbokk mi maa ngi lay nuyu bu baax eh, di la boole nuyoo beeg ziar bi ci télévision bi nga jóge kilifa yi la yabal nga ñëw fi ngir kóllëre di laaj luy suñ jotaay fii kii suñ doom la waajuram Alaaji Ngañ Fall mooy jarbaatu suñu waajur lenga maanaam maamam ak sama maama bokk ndey ak baay waaw du suñu taalibe suñu doom la suñu xarit la Eh, mm, mbokkum ñëpp la ndax bu dee ci paaleen gi ba tey eh, ndey Amari Ndaak mooy maamam kon danoo jaxasoo ci lépp ma nu ngi ànd ak sunu kilifa sëriñ Mouhamadou Seck xalifa Mame Madické xalifa Baye Ousseynou Khoudia ak sëñ Madické Seck rakam ñu ñëw fii ngir yàlla ak yonent bi ak di ko ziyaara ak di ko sagal ak di ko sagoo ak di tëbb ci leer yi nga xam ni moom la jëlee ca Makka ak ci ca Madinatu Munawwara di ko ñaanal yàlla defal ko xajjan mabruuran wa zanban maxfuuran ñu ngi sant ñi fi nekk ñëpp nuyu ñëpp gërëm nañ ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah. Njaga di kuy liggéey ci wàllu média taxawaayam ci média bi tey jii ban jàngat nga ci am. waaw ñoom xam nga seen seen seen euh, émission boobu ñuy def université laa ko tuddee. ndax euh, seen waxtaan bàyyiwuñ dara mu ngi yeete di wax ak ñi dëgg euh, ñi réer ñu gindi leen ñi xamul ñu xamal leen ñi war a yedd ñu yedd leen euh, seen émission bi am na solo ci réew mi am na solo ci lislaam bi am na solo ci aada ji kon yal na yàlla suñu borom defal leen fa jàmm defal leen fa sutura njaaga nag moom tubarkalla macha allah borom xel mu rafet la. borom judd bu rëy la te ku xam li muy def la yàlla na ko yàlla sàmm ak mboolem ñi mu bokkal émission bi. Eh, tonton di yëpp ñu ngi leen nuyu bu baax baax ñu fekkee bi tey jii sang ne la xarit sa soppe di eh, Alaaji Ndiaga tey jii bis bi man de waaw jàngat bi ma ci am rek mooy euh, nit daal nit mooy garabam parce que kilifa yi nga gis ni euh, teew nañu fii kilifa yi ma gis ni ñëw nañ fi di ziare El Hadj mi nga xam ni kenn la ci ñun wax dëgg yàlla ñu partagé lu bare bare bare muy kenn ci man njaga di kenn ci man njaga di kenn ci man dama koy bamtu waaw dama koy bamtu parce que day kenn ci man ñu bokk ay bëgg-bëgg bokk ay gëm-gëm dañuy daje lu bari bari ci julli iiti ci canaba li tax ñuy daje man maa ngi dëkk kër Maam El Hadji waaye rajo Sud day rajo boo xam ne damay gis ni bu julli iit jotee li ñuy faral di teg julli canaba bariwul ma dogu ni chaque année dinaa dem di julli euh, jëli julli it maag njaga fa lañ daa daje bu dul loolu euh, ñaax naa ko ci lu bare bare bari ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéey may magam mu xam ko lool di suma soppe di suma xarit moo tax bu xewlee jóge ca baytilaay xaram ziyaare ji woon Seyduna Muhammad ngën gi mbindéef faaw ma ñëw teew pour dooleel ko ci bësam bi wax dëgg yàlla. yaa ngi njaga yéen bokk maanaam liggéey bi ngeen def mooy ci wàllum maanaam média tey jii nii njaga taxawaayam ci média bi lan moo la ci gën a euh, taxawaay bu mucc ayib taxawaay bu mucc ayib parce que mi ngi ci bay waaram njaga bokk na suma neexee ci mujjee ñëw ci média mais liggéey bi ngi ciy liggéey ñi nga xam ne ñoo ko jiitu ci média sax liggéeyuñ ko. mi ngi fee ay émission yu garaaw émission yu baax lay def ci télé yi ak ci rajo yi dañ koy ñaanal rek euh, ci nga xam ni soppeem ba nga xam ni fa la jógee muy Seydina Mohamed mu dimbali ko te taxawu ko ci doole Seydina Mohamed jërëjëf. ñu ngi lay baax a baax tey jii nga ñëw teewee li nga xamante ni moom moo di nga ne bu Alaaji Njaga Faal bi euh, lan moo tax nga bàyyi sa temps yëpp ñëw fii. Euh, man maa ngi tudd Modou Fall mooy taaw góor bi. jagay di ko gërëm di ko sant eh, cër bi mu joxoon góor gi jox nañ ma ko eh, maa ngi koy gërëm di ko sant di sant magam yëpp ak rakkam yëpp muy jigéen ak góor cër bi joxoon góor gi jox nañ ma ko moom si tey sëkk di leen ñaanal yàlla yàlla mën a sàmm yàlla ñu maye te ku ma may nga am yàlla yàlla may sàmm leen làkk leen fa yàq eggul faj aajo yi biir ak biti. yan jikko moo la gën eh, jikko yaatu jikko xam nit ñi jaxasoog nit ñi te lool soo ko amee am nga lépp waaw comme dama mënula wax nag bu baax. waaw <laughs> waaye liggéey bu mu liggéey itam mu nekk liggéeyu média yooyu itam yaakaar naa yaa ngi ko suivre lan moo la gën a màgg liggéey waaw waaw liggéeyu média la lépp looy wax nga teg ko ci dëgg waaw te gis naa ne lépp fu muy dugg ak liggéey bu mënti liggéey dina ci ànd ak fulla ak fayda ak xam-xam waaw euh, maa ngi leen di fay bu baax a baax a baax euh, maa ngi tudd Euh, sëriñ bi maa ngi lay fay bu baax a baax di lañ jox seen wàccuwaay man la Ndeye Fatou Diatta baax euh, di leen nuyu bu baax a baax dem am te ak contentement. waaw euh, dafa nekk nit koo xam nit ku baax ndax comme li may wax rek nee na du yomb ñu may gis ci ay programme astamaa nag li nga xam ne mooy période du tàngaay mais bu ñu jógee Dakar ñëw ba Thiès parce que Fall Ndiaga da koo jar mu doon Fall Ndiaga nekk nit koo xam ne nit ku baax nit koo xam ne ci liggéey bi macha allah dara ñaawul ñuy liggéey ak moom na parce que ñun ñu fi toog ñun ñëpp ñun ñooy liggéey ak moom mais dafa nekk nit koo xam ne nii dafa neex a àndal parce que ñun nag jaar nañ ci tele yu ne gis nañ ne ku ne liggéey na ku ne mais Fallou Ndiaga dafa nekk nit koo xam ne si sa biir liggéey dalay noppal ah dalay jox li nga xam ne tamit mooy valeur dafa mën nitam di yëkkati nitam moo tax tey nag bu xew la ñu ñëpp ñu bàyyi li ñuy def daal di fiy ñëw mu nekk nag mbégte moom bu dee mbégte benn la ci moom ñun mbégte fukk la ci moom ndax Fallou Ndiaga bu ko nit nee maa la gën a xees mënu ko maa la gën jikko Fall ku nu ko nit mën a wax rek da koy bàyyi ba mu pare mënu ko man maa la gën jikko kon nag Fall euh, ñu ngi koy ñaanal rek euh, kaala bi yàlla na ko ràpp ak jàmm. liggéey ci média mu nekk mbir mu jafe-jafe yenn saa sax am na ñooñu seen jikko soppeeku Fall euh, soppeeku ne bi nga ko xamee moom zéro faute macha li may wax rek man moom bu baax woon du ma ko wax. wala boo leen mënee micro man leen ba dëgg neex yàlla sama bëñ day métti mais Fall dafa nekk nit koo xam ne macha allah laa lox zéro faute man maa ngi moom di liggéey moom lu ma tay at musuma gis si moom lu ma naqadi. wóor na Seydina Muhammad musuma gis ci Fall Ndiaga lu ma naqadi moo wax ma benn terme ma gis gisi sama bopp wala mu toroxal ma dara day ñëw teg la ci l'aise bëgg la yëkkati bëgg la mettre devant tout le monde Fall Ndiaga dafa nekk nit koo xam ne nitam kenn du ko laal nitam day am ndam kon na kooku amoo fayam ndax moom moo ma jiitu ci néeg bu la ndam kon moo may wan ni may toogee mooy lay wax ni ngay waxee moo lay jàppale te du la vexé du la xas da nit sax mën nga def ci média def erreur ci wax nit ki am nu mu la ratifié nga gis sa bopp mais Fall Ndiaga daa mel ne ku yor ay nenne tuuteem njabootu Kanaara daal ñu ñoo jiitu mu topp jinaa ko kon nag looloo tax ñu bàyyi li ñuy def ñëwal ko te bu amaatoon suba ma ñëwaat suba ndax Fall Ndiaga da koo jar macha allah. te digganteem kër gi ne itam rafet loolu rawatina nag ku mel ni Cheikh Naama Aidara nga xam ne tey jii dama màkk ci kooku la la sosoo euh, ban message nga ko lancé ci itam relation boobu. ah macha allah di leen ñaanal rek yàlla lafal leen cat bu baax a baax a baax ndax su sëtu yonent bi euh, salallaahu alayhi wa salaam bu defee lii rek daa roy ci maamam. tubarkaala te faal nag lii mu am daa am ndam bu rëy dem naa màkk ku ma yóbbu màkk sëtu yonent bi ma dem ziyaare màkkam kon nag macha allah laf cat kon nag faal yàlla rek xolam rek la ko la ko la ko fay ndax yàlla tubarkaal liggéey nag demal sa bopp màkk neex na waate sëtu yonent bi su ma sañoon mu yóbbu ma màkk. tubaakaal parce que ndam la ci yonent bi ndam la ci li nga xam ne mooy tarixe li xam ne mooy tarixe diine l'islam macha allah kon nag euh, ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yàlla guddal fan yokk ko mën-mën bu baax a baax a baax ay dara mik nañ ci moom kontaan na ci moom parce que li mu defal faal ñëpp la ko defal waa D-Média la ko defal ah li nga xam ne mooy presse sénégalaise bi ñëpp ñoom la ko defal kon na ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla aar li mu mën ren yàlla mën lu ko raw déwén te xam naa incha allah rabbi ci barke maamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina ko mën dina mën lu ko raw incha allah rek bu neex suñu borom mu mujj ngay liggéey ci média média koo xam souvent di nga def maanaam erreur de communication waaye itam benn message bu gàtt rek par rapport ak ñi nga tey ñu ñëw see client moo di liggéey waaw mais non waxkat moom xam nga ni mun ta ñàkk accident làmmiñ la mais nag nañuy am euh, courage di jéggalu bu ñu defee yenn yi nañuy am courage di topp ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu ci jiitu ah nañuy góorlu rek di jàngi parce que jàngi nag du wees bul jàpp ni rek euh, mën naa wala topp nekk esta wala di dem fougue de jeunesse non non tout le temps del wàcce sa bopp jël see nitu démb ñu gën laa jege nit ki am kilifa teg ci nag di déglu di jàng rek boo ko defee yàlla dana dimbali daal macha allah. maa ngi leen gërëm yéen waa Thiès info waa Thiès 24 je ne sais pas média yi nekk Thiès yëpp vraiment taxaw ngeen faal donc ñu ngi leen di gërëm ñi tamit liggéey bi rafet na macha allah yal na leen yàlla sàmm kontaan nañ bu baax a baax. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di leen fay nuyoo bi avant tout d'abord je me man maa ngi tudd El Hadj Pape Thiam euh, nekk xarit ak wóolare ci El Hadj njaga jóge ba ndakaar ñëw fii ci Thiès ngir teewee bis bi tey. Hmm. Euh, dënk moom ndax itam yenn saa nit xew la nitam du ñëw nga bàyyi sa liggéey ku ne xam ne tey jii jour ouvrable rawatina nga nekk ci média sa relation ak Fall. waaw xam nga relation suñu diggante ak Fall moom relation julit ak moromam la d'abord relation bu yàlla barkeel la d'abord ndax relation bi aussi li ko li ko fondement respect la ak considération ginnaaw nag bi amur weesoo ndax euh, man ak yow bu ñu xamante dafa fekk mu neex yàlla waaye bu ñu demee ba ànd bi yàgg rek ay jikko yu compatible la faal ku mu àndal ak jikko nga àndeek moom donc jikkoom boobu nag ñun moo ñu jaral ñu bàyyi suñu yitte yëpp ñëw fii euh, ci nganale gi nga xam ne euh, fa mu dem ka mu fekk ji woon kooku mooy rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom la yàlla wax ne ko inna allaha wal malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman moom la yàlla julli ci moom moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wasallam digal ay malaayikaam ñu julli ci moom moom yàlla mu wëlbati ko wax jaam ñi ne leen julli leen ci sangu-sang yi muy sayduna muhammad kooku nag bu faal jógee ci ci mu jooju jaadu na ñu ralal ko tapis rouge jaadu na ay mbokkam ñëw ndokkelle ko ci euh, pays bu mag ba mu jógee muy màkkatal mu karam waaw jóge na nag ci dëkk bu sel jóge na ci dëkk bu yàlla barkeel waaye nag jóge na nag ci dëkk bu ñu mën a nangoo ay ñaan ndax ñun lu mu bon bon bon mës nañ faa suñu tànk aji nañu xam nañu lan mooy bànneexu dem aji makka donc yàlla bu mu ump kenn ci jullit ñi ñi fa demagul aussi yàlla na leen fa yàlla yóbbu ñi fa dem ba pare aussi te bëgg delluwaat yàlla na leen yàlla yóbbu ci kattanam moom yàlla. waaw xam nga damay wax ma ne la xam nga bëgg suukar soo ko fekkee ci saaku suukar mu dee wàcc na xam nga faal njaga baax na mooy géej am na ndox ànd bi ñu ànd ak moom aussi ànd ngor la. ànd bi ñu ànd ak moom aussi ànd nawle la ki toog fii léegi muy sunu jigéen ñu ñëpp nday faatu a baax li mu wax ci Fall rek résumé na lépp doy na ka nga xam ne rek Fall nit ku baax la xam nga yonent yàlla Muhammad sallallahu bi mu génnee àddina ñuy laaj gars yi di ko témoin li ñu wax rek mooy nit ku baax la te ab julit la point loolu rek résumé na lépp tënk na lépp waaw mais nag fi may daanale aussi mooy xam nga olof dafa wax ni ku la tuddee doom su amoon teraanga àddina dana la ko jox ndax ku sañoon soo mayee sa doom sa doom du souffrir mais képp koo xamante ne bii may na la doomam kooku bu yoroon teraanga àddina dina la ko jox mais ki la tuddee doom bu yoroon luy yokk fanu nit dana yokk saw fan ba nga fekkee teraanga xale bi mu la tuddee mais képp kuy jël bi yëpp màkk jox la ko su yoroon caabi aljana balaa caa kenn dugg di nga ci dugg kon donc surtout rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bu jëlee faal njaga yóbbu ko màkka kooku wàcc na donc dañ koy ñaanal euh, barkeb maamam yàlla na ko topp yéene bi mu am ci faal njaga aussi yàlla bu ci seytaane am benn cër waaw yàlla yàlla aar leen sàmm leen ba moom mën leneen lu ëpp li mu mën ren donc kontaan nañu loolu de je pense que ne moo nekkoon témoignage ñu ñëw fi nag ànd ak euh, oustaz Makhtar Cissé jóge ba vraiment dakaar ànd ak Ndeye Fatou Diada baax moo da ndox léegi ànd ak euh, Mass moom it vraiment mu nekk nit ku baax ñun daal ñoo ñëw jóge dakaar ngir ndokkelle Fall Ndiaga ci bisam bi di ko ñaanal kaala gi aussi yàlla na ràpp ak jàmm